ce sur-sûr qu'il y aurait des velléités en tout cas certains partisans de la majorité. am na ñu naan nii am na ñu nekk ci peggu président de la république naan mu bañ a dogal gi nga xamante ne conseil bi daal na koy jël loolu nag doon na débat bi nga xamante ne dañ koo dépassé ndaxti euh, conseil constitutionnel bépp dogal bu mu jël kenn mënu see ñëwaat amul kenn ku mën a ñëwaat ci boobu lay dogal waral nag. loole li ñuy wax mën nañ jàpp ni jàll na wante nag euh, dañoo war a bàyyi suñu xel ni euh, conseil constitutionnel moo daal di bàyyeeg ñi nga xamante ni ñooy njiit yi ngir ñu daal di amal élection yi ñu daal di koy amal nag euh, ci àpp bi war. d'organiser la présidentielle dans les meilleurs délais.